rey fii ci Touba ku ñuy wax Baye Sall lañ jàmpaaka ba ñàkk bakkanam ci ab xeex boo xam ne moo doxoon ci digganteem ak beneen moroomu dawalkatub sareet mbir yi nag mi ngi amee ci quartier Madiyana ci bërëb bi nga xam ne moom lañu naan mbaar ya ginnaaw xeex boo xam ne dox na seenub diggante ci la ko jam paaka ba mu tëdd ci foofe sax fa la ñàkkee bakkanam mbooloo mu takk lool daal di ñëw jàpp ki nga xam ne moo di Ablaay mi ko jam ba mu ñàkk bakkanam ñu daal di ko fay dóor dóor yu métti lool ba gaañ ko fa daal di ko yeew xaar ñi nga xam ne ñoo di waa commissariat bu Jannatul waa ñu mën koo jël yóbbu ko Baye Zal mi nga xam ne moo ñàkk bakkanam yóbbu nañ ko ca la bul Matlaboul Fawzeyni bu Touba waaye ki nga xam ne moo di Ablaye mi ko faat waa police jël nañ ko yóbbu ko ci hôpital Matlaboul Fawzeyni moom it ngir ñu faj ko laata ñu ko yóbbu ca commissariat ngir gaañu yu métti yoo xam ne nit ñi def nañ ko ko. seen moroomu dawalkatu sareet yi kenn mënul woona a seen bopp ngir naqar gi nga xam ne moom lañ xëy am tam métti lool. waaw noonu la noonu la